dañu wax boo leen ñëw ñeneen dinañ loolu te bu ngeen ñëw yeneen ñeneen dinañ ñëw te en plus est-ce que duñu précipiter aussi le pays nga xam nga xam nga xam nga mbir tamit boo ciy dugg c'est-à-dire da nga war a xam cest à lan lan moo ne ci lan nga lan boo ci maanaam boo ci génnee lan nga ci bëgg nga résultat nga ci bëgg maanaam qu'est-ce que tu voudrais que les gens à la suite de ça te gis nañ yi fi joto service de dialogue yépp gis nañ fan la mujjee Macky Sall nit ñëpp ñu ñii naan dañuy dem ñii duñ dem mais ñi ñàkkoon a dem dialogue tey mais ñooñu am nañ dëgg ci kaw ci kaw ñi demoon dialogue xalifa sàll mi demoon dialogue sax gis nga ko bii bañ ko déclaré moo njëkk a génne cette fois ci dew ma parce que xam na ni dialogue bee mu demoon amul njariñ xam na ni tam bii bu teg Khalifa Sall koo xam tu parles du haut de son expérience Khalifa Sall bu taxawee ba ne dew ma dialogue moom dafa dem ba xam ni dialogue ak Macky Sall juratul dara en réalité Macky Sall buy c'est pour gis nga dialogue bi tamit ku ci dem c'est la même chose ku ci dem yaa ngi légitimer décision Macky Sall bi c'est triste mais c'est ça. non pourtant nga booy dialogué booy balaa ngay jël décision maanaam li ma gën a naqarlu mooy yow ay candidats yoo xam li ma wax léegi nga ay plus des des des milliers de sénégalais porter seen espoir ci ay nit nit ñii kat sa waaye dañoo bëgg ñu dem jëmmal mais ñooñu nga xëy bés ay la yëwan. génn léegi yéen coono yi ngeen dajeek processus yi ngeen dajeek nit ñi doon sonn di leen pare li ngeen ci def yëpp daal léegi man suul naa ko pousse élection yi ba noppi ne leen léegi kaay leen toog waxtaan. est-ce woon laataa ngay jël sa décision nga ne ah comme que am na ay candidats yoo xam dañ leen a validé te ay milliers de sénégalais ñoo porté seen espoir ci ñoom xaaral ma woo leen waxtaan ak ñoom diisoo ak ñoom laaj leen ci ci ci ci ci lii ma bëgg a def. am na ñu déglu leen ci ba xam. am na ñu mais mais mais mais mais wala assemblée nationale enquête parlementaire bi mu doon def mu aboutir waaye yow nga ñëw mettre la charrue avant les bœufs balaa sax mbir di di di di dem fenn nga gaawantu accélérer processus bi rek ñëw annoncé ce report ba pare na léegi nit ñi kaay leen toog waxtaan. toog waxtaan pour lan lan bu ñu demee mag Sall sëñ bi lan lañ koy wax ak lan la ñuy wax ñu nekk fa di waxtaan ak moom élection yi dañuy am wala du am mais loolu du dafa am loo xam ne Kader du lu ñu war a waxtaan. Kader da ngaa war a ñëw fii émission am nga fi droit da nga fi signé contrat 8 def émission. loolu dafa war carrière da war a def. <laughs> maanaam du loo xam ne dañ naan ah carrière wax dëgg yàlla tey ñu ngi lay sarax wala ñu ngi lay wala di dem waxtaan la loi la constitution du am ne c'est-à-dire amul amul aboutissement c'est-à-dire gisuma li nga xam ne mooy seen mooy seen ndam mhm. sérieusement gisuma ci li nga xam ne mooy seen ndam parce que li nga xam ne moom mooy am am na ba pare def nañ li nga xam ne moom jël na décret li nga xam ne moom mooy renvoyé le corps électoral proposition de loi bi aussi génn na donc jàppaat nañ yeneen date gisuma ngeen am ci nam sérieusement li ma gis mm-hmm. mooy sérieusement ngeen organiser wu de telle sorte que yéen cette fois vous allez poser vos conditions parce que Macky cette fois dafa woote dialogue. soo waxee ngay wax tu parles de l'opposition en général non je parle de l'opposition. donc serviteur xam na ne dañuy dem ci dialogue bi. Pape <laughs> Djibril borom xam ne moom dafa nit waxtaan parce que ñu dem parce que ah c'est pas parce que demoo di ah. je me dis ñaari solution ma waxtaan li ngeen di waxtaan ak parce que li ngay wax ni yëpp c'est-à-dire c'est possible sur le dialogue tey jii li nga naan les candidats c' est possible que le dialogue bu ngeen demee waxtaane mën ko ci nekk sooy dem da ngay yóbbu sa soxlay bopp euh, euh, le le combat d' inter général voilà général politique là la classe politique savent di ko mëne parce que sinon duñu benn combat rek la classe politique mëne opposition bi mhm. mu am ko moom mooy la troisième mhm. à part ça amul lépp dafa capoté parce que tout simplement ku nekk sa intérêt ngay dox euh, sénégalais itam lii baax na ci ñoom parce que ñoom <laughs> euh, tout s'est joué au niveau de l'Assemblée nationale sénégalais yi ñoo fa yóbbu ay ndaw mm. Assemblée nationale bu ëllëgee su nit ñi di ñëw daggaan seen baat dinañu xam ñan lañ parce que fii la ñu toog ñu am ay liste ay nit yu normal yu respectable yoo xam ne au moins même boo àndul ak ñoom gis-gis. Mhm. boo leen gisee assemblée. da ngay kontaan ay ay ay Marème sooda ay ay ay Montey ay Thierno Thierno Bocoum ay ah, des gens yoo xam ne. Mhm. yu valeureux yu nekk si si si si si euh, si si si si liste Ousmane Sonko diabolisé leen. yàqal ne ne ñooñu dañuy dañuy rouler pour le pouvoir sénégalais gëmm seen bët yëpp dem dem votel on se retrouve avec des Kouramaki du duma ko tàyyi di ko wax. te tey ji loolu moom moo ñu indi lu ñu am ni tey mhm. parce que si on avait une assemblée nationale digne de ce nom euh, mascarade bii nii ça n'allait pas passer mhm. mais parce que y a eu la loi du plus fort au niveau de l'Assemblée que cette mascarade là a pu passer te loolu nag sénégalais yi mhm. s'en prennent qu'à eux-mêmes parce que ñoom ñoo fa yóbbu genre nit yooyu noonu à l'Assemblée voilà li tax mu jàll Benno Bokk Yaakaar ñu jàppale wax PDS voilà Kajoor que c'est la majorité. C'est aussi. ñoom ñoo ëpp mais si on avait beaucoup plus de, de députés valeureux. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. il mm -hmm, mm a pas accepté ça. Oh, ça aussi c'est vrai Abdou. xam nga xam nga xam nga sa à dire lu ñu wax nii yëpp dëgg la mais actuellement am na foo xam ne jamono bu fa tollee pour man euh, li gën mooy doole yëpp dajaloo nekk benn parce que maanaam gis nga li xeex bi du xeexu parti serviteur du xeexu parti Pastef wala ay. aar aar Sénégal maanaam xeexu sénégalais yëpp la journaliste bi da ko da ko da ko concerné gis ngeen seen bokk journaliste li ñuy daj fan yii li ñu leen di teg ci injustice maanaam Macky Sall moo atteindre summum ci ci ci violence ci bëgg nguur ci bëgg des ci nguur gi ba mu jaral ko lu ne xam nga bu fekkoon sax violence bi wala wala injustice bi ci acteur politiques gi rek la jëm c'est c'est à l'égard des acteurs politiques sax jar naa condamné waaye rawatina violence boo xam ne bàyyeetul journaliste bàyyeetul sax citoyen lambda bi nga xam ne deful politique du journaliste day xëy rek di dem yoonam maam tey jii gis nga la mort comment elle est banaal banale maintenant dans notre pays. Mhm. léegi les morts on les compte comme ça par dizaine sous la magistère de Macky Sall te loolu ci Macky Sall la xew étudiant étudiant léegi deewu étudiant léegi du dara ci suñu réew Alpha Yoro Tunkara mii dee barki Démo Ndiaye un jeune de 23 ans mais sëñ bi benn fan lañ ciy wax ñaar pare nañ ci. étudiant boo xam ne dem na ba licence 3 en géographie. yéen a si war a taxaw. mais ñun. yéen opposition bi yéen a ko war a jël taxaw xeex loolu noonu. mais ci lañ dëkk xam nga dama la a wax mais aussi ku ci nekk sa intérêt ngay ngay jëmal moom ngay xam nga xam nga dama la xam man sama bopp laa mën a waxal nag ñun personnellement bokk ba ñu tàmbalee ba tey musoo ñoo gis ñu dugg ci dara nga analyser ko xool ko nga xam ni lii kat ñii wax dëgg yàlla ñii seen intérêt dong nga tax ñu koy def ñun lépp lu mën a doon rek wax naa ko fi waxati naa ko fi président def nañu lu ngeen di def wala lu ngeen di wax posez-vous deux questions principales et principielles mooy de quoi s'agit-il parce que buggul kenn di wax lu mu xamut nee na leneen li mooy où se trouve l'intérêt général nee na ñaari questions yi saa su leeree seen bopp rek avancé bu leen nekk ci ay calcul politique sëñ bi bu ñu nekkoon ci ay calcul politique ñun kenn waxatu ko mais ñun on a choisi de jouer le franc jeu avec les sénégalais loolu moo tax tey jii la ci bari à un moment donné maa ngi koy wax sànq ba tey. suñu position naqari woon a comprendre parce que ñun dañoo ñëw taxaw ne intérêt général kese la ñuy ba ci assemblée tey assemblée ba ñuy départ ñu ne ñu non aligné sëñ bi ñu naan ñu euh, tànk day banque wala mu le mook fii ngeen faro mais tey ñaata noon aligné la ñu am tey biir assemblée tànk day banque moo tax ma la tey ñaata non aligné la ñu am tey moo tax ma la tey ñaata non aligné la moo tax maanaam défendre dëgg dëgg lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg mën na metti au début mais lu mu yàgg-yàgg nit ñi dem ba xam yow mi kat ci dëgg nga mais président ba mu taxawee ci perchoir bi xoolal tey plaidoirie bi mu def tax waxaw a paayeeg maire yi nga xam ne ñoo nekk PDS wala Benno doon porter euh, projet de loi boobu pour ñu jàllale ko mais dana leen yéen xanaa yéen seen doom yi bokkul ci ñuy dee ci ci ci ci mbënn mi xanaa yéen seen doom ñi bokkuñu ci nga xam ñooy subir chômage bi nekk ci ci dëkk bi ne yokk euh, euh, pousse élection yi yokkoo mandat wu président Macky Sall de jafe-jafe sénégalais yi ngay yokk mais c'est ce qu'on attend député léegi nag loolu kenn du la ko forcer ne la à ah, nga ko war a xool moment tel nga ko war a wax da ngay xaar ba heure bu mu jotee xam nga même événement yi jàll fi xewoon sax lu waaye mën a wax da naan yii c'est entre deux candidats entre deux citoyens sénégalais du moins ñoo amoon problème entre euh, euh, devant la loi léegi loi di ko gérer donc dañ ci am benn retenue bi mais lii. Mhm. c'est la république qui est attaquée. assemblée nationale moom. léegi discours républicain la da nga koy compter sur